nee na soldaar yu bari tamit wër ko nee na boobu nag ci soldaar yi am na ci seen biir koo xam ne moom siyaare ma moo ko tax a jóg siyaare ma rek moo ko tax a jóg nee na bi ma gisee sol bi ma gisee waa jooju nag nga xam ne moo jiite arme bi mu doon koo xam ne xëy na ku ña ku ñagas la sëriñ bi nee na la njëkk a def mooy dama wëlbatiku sama kanam jàng bismillahi rahmaani rahim juróom fukki yoon bismillahi rahmaani rahim la jàng juróom fukki yoon nee na bi mu ko defee nestuuf jaraaf jooju daal di génn jëm ci ay aajoom waxatul dara sax lu jëm ci wàllug sëriñ bi ndax dafa bëggoon sëriñ bi fanaan foofa mafatihal bisri wal amni wal janna bi salaati wa taslimi ala muqimi sunna mafatihal bisri wal amni wal janna fi salaati wa tasliimi ala muqiimi sunna auzu billahi min ashaytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowmi ddin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam te mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di dellusiwaat ak yéen ci sunu bindu ñaareel ci bind bi ñu tàmbali woon te mooy di ci nafaraat dunduk cheikhul xadim radiallahu taala anhu di dund goo xam ne dund gu barkeel la dund goo xam ne dund gu teey la waaye doon dund goo xam ne itam dund gu bari ay leçon la yu ci nit mën a jële ak lu ci nit ma itam mën a jàngee ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa bindu bee ñu jàll mel na ne ñi ngi yemoon ci bi nga xamee ne sëriñ bi jot na ndigal ngir wuyu ji tubaab bi mel na ne tubaab bi doon na ko woo ay yooni yoon ginnaaw jaxase yi nga xam ne doon nañ ko jaxaseeg moom tubaab bi doon na ko woo ay yoon waaye sëriñ bi nanguwul woon a dem ndax amagul woon ndigalal amul amagul woon ndigalal dem bi nga xamee ne nag am na ndigalal dem tombante yitam tubaab bi di ko jël si mel na ne foofu lañ yemoon mi ngi génn euh, fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar bu dee ci gàddaay gi mi ngi tolloog 1313 bu dee ci atum tubaab moo tolloog 5 septembre atum 1895 sëriñ bi bind ko ne xarajtu ma sabti thamina achar li xidmatil muxtaari fi chahri safar te Euh, weer woowu ñu wax ak bis boobu ak at moomu sëriñ bi mi ngi taseek soldaar yi nga xam ne ñoo ko doon jël si dëkk fu ñuy wax tund jeewal tund jeewal fala taseeg ñi nga xam ne ñoo ko doon jël si bind na ci sax ay bayit wax na yitam ne bi nga xamee ne tase naa ñi nga xam ne ñoo ko doon jël si te amuk xat lool ci seeni xol amuk xat lool ci seeni xol wa baada ma laaqu wa baada ma laaqu alladina xaraju li daarihi wa fi suduuri araju saaru maan nahwa alwasiri musrihin wa inda waqti al asri sallu xaashiin nee na bi nga xamee ne tasee naag ñoo ñi nga xam ne ñoo ko doon jël si muy soldaar yooyu te amuk xat lool ci seeni xol ngir en guñ ko en nee na nag ci lañu ànd daa wutali nag euh, jaraaf ji nga xam ne moo leen jiite xare bi wala boog armée bi am na ku ko jiite nee na bi tàkkusaan jotee nag ñu julli bi tàkkusaan jotee ñu julli mel na ne foofu itam njëkk rek ñii dem foofu mel na ne kiimtaan feeñ na foofu ndax wax nañ ne dañoo manqué woon am ndox waaye amuñu woon fu ñu mën a jëleem ndox waaye ni nee na fi ñu toogee noonu nes tuur rek ñu gis koo xam ne dafa yor ndox mu bari romb leen waaye nee na bi ñu waxee moom moom xamul lan lañ leen lan lan lan lay wax lan la lan lan la ko taalibe yi wax ci lañ ko tàllalee loo xam ne jumtukaay la boo xam ne bu ñu mën a def ndox la mu rootal leen ñu root ñu jox sëñ bi mu jàpp ndax sëriñ bi daawul julli ci ak lu dul njàpp te julli gu nekk daf ko daan jàppal waaye nee na foofu dañoo manqué woon ndox waaye nee nañ foofu eh, kiimtaan feeñ na foofu ndax nee na ñoom xamuñu waa ji xamuñu itam sax làkk bi nga xam ne itam moom lay moom lay làkk loolu mel na ne sëriñ ma bàññi njaay nettali na ko nee na bi nga xamee ne nag tàkkusaan jot na ñu julli moom lay wax ci bayit yi ne bi nga xamee ne tàkkusaan jot nañu julli tàkkusaan ci lañ ànd nag daal di dem ca jaraaf ja nee na soldaar yu bari tamit wër ko nee na boobu nag ci soldaar yi am na ci seen biir koo xam ne moom siyaare ma moo ko tax a jóg siyaare ma rek moo ko tax a jóg nee bi ma gisee sol bi ma gisee waa jooju nag nga xam ne moo jiite arme bi mu doon koo xam ne xëy na ku ña ku ñagas la sëriñ bi nee na la ma njëkk a def mooy dama wëlbatiku sama kanam jàng bismillahi rahmaani rahim juróom fukki yoon bismillahi rahmaani rahim la jàng juróom fukki yoon nee na bi mu ko defee nestuuf jaraa jooju daal di génn jëm ci ay aajoom waxatul dara sax lu jëm ci wàllug sëriñ bi ndax dafa bëggoon sëriñ bi fanaan foofa moom moom sëriñ bi dafa bëggoon a fanaan foofa waaye mu mel ne ñoom loolu jubluwu leen waaye bi sëriñ bi defee loolu ngir tàggat ko ngir nooyal ko ci la suñ suñu borom tàggatalee jëmm jooju euh, mu bàyyi leen ñu fanaan foofa soo ko defee kooku mu naan nag siyaara mu siyaara mu moo ko taxoon a jóg moom sëriñ Omar Ndiaye la tudd dëkk ci ci ci wetu Louga sëriñ bi fonkoon na ko lool itam moom sëriñ Omar Ndiaye moomu bi mu faatoo itam wax na ci moom lu bari loo xam ne manees na ko cee ñee loolu sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Euh, wax na ko ci irwa u bi nga xamee ne fanaan nañ foofu nag bi fajar jotee nag lañu wuti kokki fa lañ yandu booba itam la sëriñ bi tàmbali di way xasida gi ñuy wax asmaa u ahlu badrin loolu itam di bisub dibéer maanaam dimanche ginnaaw biñ jullee gee nag ba noppi ci lañ nag daal di wuti Louga bi nga xamee ne jógee nañ kokki euh, biñ jugee tund jeewal noonu ci waxtu fajar lañ jëm kokki bañ demee kokki nag ci la sëriñ bi tàmbalee way xasida gi ñuy wax asmaawu ahlu badr tombeeg bisub dimanche bi nga xamee ne àgg nañ nag kokki biñ jullee gee ba noppi nag lañ fa jugee wuti Louga booba itam wax ne ne taw bi mi ngi mi ngi mi ngi wis wax nañ ne itam fo fo maanaam wax nañ itam fasu sëriñ bi fas bi nga xam ne moom la sëriñ bi waroon da doon raw fas yi ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ba mujj dañ dañ naan ko xaar ñu waaye sëriñ bi li leen di wax mooy seen kilifa yabal leen ngeen war a gaaw di yeex ba ma leen di raw nga xam ne foofu dinañ ci yitam jàngee la njaxlafuk sëriñ bi ak yàkkamti gu mu yàkkamtee dem ci ndigalul boromam subhaanahu wa taala sëriñ bi ku ko xam rek ci loolu nga xam ñi ngi àgg Louga itam njëkk fajar biñ fi jugee gee biñ jugee gee kokki ñi ngi àgg luga njëkk fajar bañ fanaanee nag xëy suba di bisub altine bañ jullee tàkkusaan nag ba noppi ci lañ nag dugg saxaar wuti ndar ñi ngi àgg ndar laata jant bi so foofu ci ndar itam sëriñ Tuuba radiallahu taala anhu am na fa weer ak fukki fan wala weer ak juróom ñeenti fan foofu ci ndar ci diggante boobu nag nga xam ne ci la nekk ndar ci lañ nekk di xalaat maanaam kii nan lañ ko war a def boobu fekk na ñu jàpp ko ba indi ko léegi nag ñu ne nan lañ ko war a def am ñu ne dañ koy rey am ñu ne dañ koy génne dëkk bi am ñu ne dañ koy tëj rek te bañ koo génne mu dëppoog itam ni nga xam ne moom la waa Màkka doon xalaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne mi ngi woote lim doon woote ba alquran di ko tudd di wax ne wa id yamkuru bika alladina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkuru llahu wallahu xayrul maakirin nga xam ne loolu xalaat yooyu lañ amoon ñoom wa màkka te mooy ñu tëj ko wala ñu rey ko wala ñu génnee ko seeni ñam ña ngay pexe seeni pexe waaye sunu borom itam ma ngay pexe ay pexem itam te xam ne na te ku ne xam ne ne pexem sunu borom moom mooy pexe ma jug waaye nag lañ dëppoo lañ mujj xalaat tañ dëppoo ca mooy nañ ko génnee dëkk bi yóbbu ko fa sori ci réew yi waaye tamit ñu xam ne loolu itam mënta am te amul sabab ñu xam ne loolu mënta am te amul sabab moo tax am na ñu wax ne loolu moo waraloon ñu woo juróom-ñetti fukki sëriñ yooyee ñu woo woon ak ñett doon leen si signaloo ngir ñuy ànd ak tubaab bi ci lépp loo xam ne bëgg nañ ko wala lépp loo xam ne ñu ngi koy tëral ci dëkk bi ndax ñoom xamoon nañ ne yàgg-yàgg sëriñ bi du signé am na ñuy wax nag leneen waaye lii mel ne mooy la gën a wér maanaam tubaab bi dafa invité sëriñ sépp ngir bëgg a ànd ak ñoom ci xalaat yi nga xam ne moom la tubaab bi am maanaam ñoom ñu ciy dëppoo ak ñoom te xam nañ ne Serigne Touba moom yàgg-yàgg du signé waaye bëgg nañoo wutal lay ngir génne gi nga xam ne moom lañuy ñuy génnee Serigne bi waaye bañ ko defee am na ñoo xam ne siñe nañ am ñoo xam ne signé wuñ am na ci ñeent wala juróom wala ñeent ñoo xam ne signé wuñ ku ci mel ne sëriñ Kokki Mouhamad Aminata Yàlla Jóob moom signé wul moom it ñu sàkkal ko pexe ak ku ñuy wax sëriñ Màkka Qaadi moom it signé ñu sàkkal ko pexe ak ku ñuy wax sëriñ Balla moom it si ñëwul ñu sàkkal ko pexe naka noonu sëriñ bi itam moom it si ñëwul ñee sax wax nañ ne ñoom dañ leen a dañ leen a faat waaye sëriñ bi moom bi nga xamee ne si ñëwul moom it moom dañ koo sàkkal pexe te mooy génnee giñ ko génnee rek dëkk bi am na ñuy wax itam ne bi nga xamee ne dafa lànk si ñëwuñ lañ njëkk a def ak moom mooy dañ koo booleek gaynde biñ noppee ñëw wax sëriñ sa nga xam ne ñoo fa desoon ne leen ña jiitu woon ñëpp de dañoo bañ ba sànni nañ leen ci gaynde bañ jëfandikoo leen nee na ñoom ñëpp itam ñu daal di maase signé wallahu ahlam ginnaaw lii nag lañ daal di nag dugg lañ daldi dugg ci seen biir ci ñoom waxtaan ci seen biir nag dogu ci ne dañuy génnee sëriñ bi sëriñ bi mënatul la nekk ci dëkk bi dañ koy génnee dëkk bi jëmee ko nag ci réew mu sori ci réew yoo xam ne xëy na yu ci bari xamu ko woon loolu yi sëriñ bi ñu ci ay bayit ne ñoom de li ñu dëppoo mooy sunu boroom def na ci seeni xol euh, ci ñi nga xam ne ñoo doon sabablu ci ñu toxal ma maanaam def na ci seeni xol ñu génnee ma maanaam adxalal ilaahu fi bi man tasabbabu fi naqlihi dhaka zaman ixraajahu ilal bilaadi naiya wa naala fiha fawqa sami saariya sunu boroom tàbbal na ci xol yi ñu doon sabablu ci ñu tuxal ma ñu génnee ma jëme ma ci réew yu soriya ci weer yooyu tamit mu sax ndar moom sëriñ bi ci weer yooyu mu sax ndar fala mottalee xasida gi ñu waxoon ne mi ngi ko tàmbali te mooy asmaawu ahlu badrin ci weer yooyu mu sax ndar ci la ko àggale wax nañ ne itam ci weer yooyu waa njàmbur ñu ci bari ñëw nañ ngir bëgg koo tinu ci tubaab bi waaye sëriñ bi dana leen bàyyi leen maag sama borom rek moo leen gën a ñeewante ci man ëpp leen itam yërmande ci man bi nga xamee def nañ noonu nag sëriñ bi mu ngi jóge ndar ci weeru gàmmu atum 1313 ci gàddaay gi jëm dakaar mu ngi àgg dakaar bisub alxamis boobu nga xam ne moom lañ juge ndar laata jant bi di so booba itam wax nañ ne dafa yóbbaale woon ak koor waaye wax nañ ne bi mu agsee dakaar lañ njëkk a def mooy dugal ko ci néeg boo xam ne xat ga ak lëndëm ga foo ko takk weesu na ko booleek sobe sa fa nekk ak lor ja booleeg itam nga xam ne kooram googu mu wooroon dugg ko benn yoon kooram googu mu wooroon dogu ko benn yoon moo tax loolu metti woon na ko lool ba daana wax ne su ma fàttali fàttalikoo panaan moomu nga xam ne moom laa fanaan ndakaaru ak sax googee ma fa sax ak kookee ma fa dugal sama xol ci lenn rek lay nekk mooy fop ay ngànnaay xeex ak ñoom waaye nee na yonent bi sallallahu alayhi moo dox sama digganteeg loolu iza dakartu dhalika al mabita wa dalika amira wa thubuta taarat ila al jihaadi bil armaahi nafsi walakin zabba an il maahi bi nga xamee ne xëy nañ nag suba suba di ajjuma di bis bi njëkk ci rakk ci gàmmu ci la nag war dugg ci gaal gi wala dem nag ci réew yoo xam ne da ko daan dégg rek foofu itam ci gaal gi ñu bari fekk nañu ko fa ci murid yi bokk na ci maam Cheikh Ibrahima Fall radiallahu taala anhu ànd ak naqar wu metti loolu sëriñ bi wax na ci ay bayit ne wa jaahu fi fulkihi lmashhuuni muriduhu ay fatam mamxuuni wa waadaa al murida rajaa ila al bi qalbi wajaa nee na itam ci biir gaal gi la borom sunu boroom subhaanahu wa taala ko yow de yaay jëwrinu yonente sallallahu alayhi wa yaay jëwrinu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam allamani rahmaanu fi na bi annani xadimu zil madina ba tey itam am na ku ñuy wax duud sekk wax na sëriñ bi ba tàyyi ne ko kilifa gii fi nekk de ku yees la koo xam ne day door a ñëw yaakaar naa boo ko xamaloon sa mbir dana la lijjanti ba doo génn ba doo dem ba sëriñ bi sax xelam mel ne lu xaw a jëm ci loolu ba mu nar a def lu mel noonu waaye nee na dafa jekki-jekki rek dégg lu mel nag kàddu guy waxanteeg moom naan ko ndax da ngay jël sa aajo di ko jëmale ci keneen ku dul man nee na mu tiit daal di bàyyi lam naroon a bind waaye nee na teewul Duudu Sekk moom topp ko rek naan ko bindal bindal bindal rek bindal boo bindee xëy na tubaab bi ku bees la dafiy door a ñëw boo ko leeralee sa mbir mën na laa bàyyi ba doo dem waaye sëriñ bi nag mujj ne ko loolu moom mënatu la nekk loolu itam wax na ko ci ay bayit ne wa talaba alladi al amiru arsala mahal qadimi nasihan barawatan ila amiri ila amirin qadima min ardihim wa maala summa nadima summa mahal summa mahal xadimu ma qad kataba summa lahu xutiba thamma biktuba ngo kon loolu mooy bi nga xamee ne rek ñi ngi bëgg a jóge ndakaaru duur sekk amoon yërmaane ci sëriñ bi bëgg sëriñ bi bind bataaxal boo xam ne day tax ñu bàyyi ko ba duutul demati hmm. sëriñ bi mi ngi jóge ndakaaru nag bisub gaawu tombeek ñaari fan ci rakk ji gàmmu bi nga xamee ne jóge na ndakaaru nag dugg ci gaal gi gaal gi mi ngi teere dëkk bu ñuy wax Konakiri bi gaal gi teere Konakiri wax na ci biir gaal bi am na benn saalum saalum boo xam ne dugg na ba gis sëriñ bi nuyoog moom bi ñuy tàggatoo nag mu ne ko damaa bëgg nga dénk ma ndax kat dama dégg ñu ne dañ lay yóbbu Gabon ma di la siyaar si tey sàkk yitam ab dénkaan waaye dénkaan ba ko sëriñ ba dénk mooy ah, maa ngi lay dénk de xamal ne foo man di nekk xamal ne yàlla rekk mooy buur amul benn buur bu dul moom sunu boroom subhaanahu wa taala ku jublu ku dul yàlla dana dem bis ba xam ne yàlla rekk mooy buur ku jublu yàlla nag te awe woo ko ci li yonente bi sallallahu alayhi wa indi dana dem itam ba xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa de ndawul yàlla nee na nag foofu la tàggatoog moom daa di dem moom saalum saalum bi loolu itam sëriñ bi mel ne ne am na ci mbégte lool ndax daf koo jàppee addiya ju mu jox yonente bi sallallahu alayhi wa xamal gi mu xamal euh, salum saalum boobu maanaay laa ilaha illa allah moo tax sëriñ bi wax na ci ay bayit ne hadiyati safat lada konaakiri lil mustafal maaxi bila manaakiri maanaam hadiyu jooju muy wax ne sell na fa konaakiri nee na mooy xamal goo gi nga xam ne moom la xamal saalum saalum bi maanaam laa ilaha muhammadum rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam bi nga xamee ne gaal gi euh, déqiwaat na Konaakiri jëm nag Karambasa sëriñ bi nee na bi mu duggee ci gaal gi bi mu duggee ci biir rek nee na la gis koo xam ne am noon la nee na mu tàmbali di ko wax kàddu yu ñaaw yu kenn mënta dégg moom moom noon boobu waaye nee na nestul rek kii maanuk suñu borom feeñ foofu ndax dañoo jékki-jékki rek mel ne am luy riir ci biir gaar gi riir gu xumb ba kenn déggatul sa morom kenn déggul itam li waa ji wax ba ni gaal gi àggee karambasa kenn déggul li muy wax bañ àggee nag la waa jooja loola itam di euh, kiimtaan waaye di itam euh, mbirum sunu borom subhanahu wa taala moo tax sëriñ bi tudd na ko ci ay bay ne adhaba anni fi karambasa mu qablu mubarisi wa xal xalbasa yàlla sunu boroom demal na ka doon léewatoog man ca karam karambasa demal na ka doon léewatoog man ca karambasa ñëw fekk sëriñ bi ci gaal gi rek tàmbalee wax ak moom kàddu yu ñaaw waaye sunu boroom eh, ci ndimbalam mu mel ni dafa am luy riir ci gaal gi ba kenn déggatul li waa ji wax bi nga xamee ne gaal gi nag jóge na karam karambasa mi ngi wuti nag dëkk bu ñuy wax dawme sëriñ bi nee booba yoroon na benn biteelu misk yoroon na benn biteelu misk nee na mu génnee ko bëgg koo sotti ci ay téereem ak i yéreem ñu ne ko eh sànnil waaye nee na tegu ci baat mu daal di sànni rek ci géej gi nee na bi gaal gi àggee nag eh, daaw me nee na am mbooloo mu bari moo xam ne dañoo déggoon ne sëriñ bi mi ngi jëm si foofu xëy na yàgg nañoo dégg turam ñu déggoon ne sëriñ bi mi ngi jëm si foofu nee ñoom ñëpp ñu taseeg moom foofa te it bi ñuy ñëw kenn ku nekk da yor butéelu misk boo xam ne da ko ko fas yéenee jox addiya loolu itam di payug suñu borom ci butéel boobee nga xam ne moom lañ ko sànni loo woon ndax daa daani arrahmaan inda daawami lahu bi ma agna ani tasaawumi ginnaaw loolu itam la gaal gi déqeeti wuti Libreville bi nga xamee ne jógee daaw me mi ngi jëm dëkk bu ñuy wax lii Libreville fekk na itam gouverneur bi nekkoon Sénégal waxoon na kay féetewoo mbirum Serigne Touba radiyallahu taala anhu ca foofa ne ko bu yegsee de nu ngeen mën a def ba mu faatu rek baax na suñu yoon nekku ci moo wax nañ ne ba mu agsee lañ njëkk a def mooy gas am ba mu xóot ñu tàbbal ko ca bañ suulee ba noppi nag dikkaat fekk ko fam nekkoon moom sëriñ bi am na ñuy wax loolu am na ñu wax ne moo tax sëriñ bi bind bayit bii ne radama rabbi ma aduwi xafar li darari wasaanani amman kafar sunu boroom màbbu na pax ma ma samay noon gasaloon ngir lor ma say noon nag mën nañ laa gasal am pax ci ay pexe yuñ lay pexeel mën nañ laa gasal am pax itam comme nii ñu ko gisee ci nettali bi bi nga xamee ne nag àgg na Libreville euh, ñu daldi koy yóbbu ca tefesug na lambar na tefesug lambar na gi nga xam ne di diggam ak Libreville toll na ci deux cent quarante six kilomètres ci li Serigne Mouhamadul Mahmoud ñang wax ginnaaw bi nga xamee ne dem na fa ba nattu ko lambar na googu itam la taxoon ñu yóbbu ko fa moom sëriñ bi dafa doon àll boo xam ne àll bu lëndëm la dafa lëndëm lool te njort na itam rab ya fa nekk. Eh, danañ jëfandikoo sëriñ bi buñ ko fa bàyyee moom kese ndax ay ay ndegmeent rek fa nekk foofa itam am na fa juróomi at ci àll boobu moom sëriñ bi am na fa juróomi at ci àll boobu nga xam ne du néeg du dara lu dul sànni ci àll noonu rek bàyyi ko fa nee na waaye tamit taalif na fa xeeti taalif yoo xam ne mësta gis yu ne amee njariñ fa sunu borom subhaanahu wa taala ak fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na itam ci juróomi at yooyu laa melee ne ab jant tiim ñëpp ame leen ab jant tiim ñépp ci foofu itam ci Libreville fala soldaar si gise woon kuréel gi ñuy wax ahlu badrin te loolu li ko waral mooy dañ koo boole woon ak soldaar yoo xam ne seenu melo na la ko yàlla ump ngir bon gu ñu bon ak soxor gu ñu soxor ñu di ko def loo xam ne lu mettee metti la di tux saxar maanaam di tux di ko xër saxar si góor ak jigéen di def lu ñaaw ci kanamam ak di ñëw ba tolloog ci wetam di tuur ndox ndox ma di ko tes waaye loolu lépp rek euh, mu ànd kooku muñ di muñ ngir jëmmi yàlla sunu borom subhanahu wa taala ba benn bis nag nee na mu génn di julli ci foo xam ne dafa xaw a sore quartier gi nee na nag bi nga xamee ne dikk nañ gis ñoo xam ne dañoo kaalawu war ci ay fas eh, yor kaala yu gudd mel ne lu yor itam ay ngànnaay war ci kaw yi fas wër sëriñ bi loolu itam wax nañ ne waxtu suba teel la woon nee na bi ñu ñëwee rek yam ci loolu ñu daal di tiit mënatuñoo dem mënuñoo ñëw taxaw fa ba gisatuñ leen ñu door a dem wax nañ ne kilifa gi nga xam ne moo jiite moo jiite woon soldaar soosu wax ñi nga xam ne ñoo gis loolu ne leen lii lu yàgg-yàgg bu leen ko nettali lu yàgg-yàgg bu leen ko nettali ginnaaw bi sax moom kilifa googu daana ñëw ci sëriñ bi di ko di ko jéem a gëstu di ko laaj naa ko yow de dafa mel ne am na ñoo xam ne tey buñ bëggoon a xeex wala yow boo doon xeex dinañ la mën a dimbali waaye sëriñ bi nee na lu mu wax rek ma mel ne ku ca xamul dara ne ko ñum la ñoo ñoo ñu mel na lañ ay jinne lañ am nit wala lu ñuy doon nee na ba mujj rek mu bàyyi nga xam ne sëriñ bi bëgg ko cee wax dara su ko defee feeñu ahlu badrin nag euh, ci barab yu mel noonu mel na ne mosuñu koo dégg mosuñoo dégg itam ci wàll yu yàlla yi suñu borom subhaanahu wa taala borom masa defal lu mel noonu moo tax sëriñ bi daana ci sant suñu borom subhaanahu wa taala lu bari ci ay mbindam daana ci sant lu bari ci ay mbindam lu ci mel ne li wax ne yasara lil muna la daa li barwali man xaadali ma xaaba an kulli wali di wane li nga xam ne suñu boroom defal nag ko wammatal ko ko eh, mooy ahlu badrin googu lii xaada ahla badrinil usooda man sax-saxal waas yewal xasooda nga xam ne daal eh, mel ni ne ña ko jiitu woon tañ leen daan wax ay niti yàlla amuñu woon lu mel noona lu ci mel ne laqad tabayyana lil fujjaari kullihim wa kawnul kiraami maahi is jaysuhum xaano illa ya jaa rijaalullahi wal kurama waqta waqtal jihaadi wa fil aadaai itqaano ba tey itam li mu wax ci salaax yi bi fadlillahi te mooy zimaami bi aydil jundi daaroo maxi lada zawil jahli wa tadlili awnan min al alam ila nasrina qad saarao ma xuyoolihim wa xaafal ida minhum wa maalo ila salam foofu nee na sëriñ bi wax nañ ne sax ñoom soldaar soosu bi nga xamee ne gis nañ ahlu badar googu foofu lañ tàmbalee jàmm ak moom mooy waxaafal ida minhum wa maalo ila salam jeng nag jëm ci fas yéene jàmmoo ak moom xëy na dina leer ca mujjantal ga incha allah ba tey sëriñ bi itam mas nañ koo laaj ci wàllu googu lu jëm ci waa ahlu badar ñooñu nekkoo ndax malaaka ya la am saxaaba ya mu ne malaaka ya ak saxaaba ya ñoom ñëpp ñaari kuréel yëpp lañ ñu ne ko ndax yonente bi sallallahu alayhi wa na ci mu ne moo leen jiite woon moo doonoon seen jiit ginnaaw loolu nag lañ ko yóbbu itam fu ñuy wax maa yomba mu am fa ñaari at aki weer maa yomba itam barab bu doon barab maanaam bu doy waar la woon barab bu doyoon waar la fa la wiir wiir nekk géejam googu itam wax nañ ne euh, da doon géej goo xam ne itam géej gu doy waar la moom wiir wiir waaye teewul sëriñ bi eh, bi nga xamee ne yegg na foofa lam njëkk a def mooy seedeloo géej gi mën nañoo wax sax daxawa géej gi ñi nga xam dañuy wax daxawa daxawa maanaam sëriñ bi lam njëkk a def mooy seedaloo géej bi ak di ko wéetalloo yàlla sunu borom subhaanahu wa taala ci ay bayit yu neex te mooy lim koy wax naan ko liyashhad bi kawni abda man yaxfiru danba wa kawni xadimal mustafa baxra maa yomba mooy yow géejug maa yomba seedeel ne man kat jaamu bi yàlla la moom laay fasoo doon tey jëwrinu yonente sallallahu alayhi wa ne ko ayaa baxru wala boog walishhad bi anni laa udaaxinu mushrikan xalilan xabiban lillazi karramal janba yow géejug maa yomba seedeel ne duma ànd ak kuy bokkaale ak yàlla sunu borom subhanahu wa kuy bokkaale yàlla man Sëriñ Tuubaa duma ànd ak moom te xaritub yàlla sunu borom subhanahu wa taala laay fasoo doon ne ko ayaa baxru waxit laa tusallis fa rabbuna taala an taslisi akrim bihi rabba yow géejug maa yomba na wéetal yàlla sunu borom subhanahu wa taala te bul ko te bul ko bokkaale sëriñ bi ku bañoon bokkaale la moo tax ñi xamul di wax sëriñ bi naan day dendale boppam ak yàlla wala xeeti wax yu mel noonu maanaam dañoo xamul dimension bi sëriñ bi tolloon digganteem ak borom bi subhanahu wa taala ko kon yow géejug maa yomba del wéetal te bul bokkaale ndax yàlla kat tedd na wólis kenn di ko bokkaale ne ko fa kun zattiraabin musbidan min maxaafatin min allaahi washhad annani abduhu sabba yow géejug maa yomba del baj tey fuur waaye nag dee ko def ngir ragal yàlla sunu borom subhaanahu wa taala te seede ne man kat ab jaamam laa bu ko sopp jaam bu yàlla la sunu borom subhaanahu wa taala kon bi nga xam ne yóbbu nañ ko ci tiit xalaat leneen waaye lam njëkk a def mooy seedaloo géej gi moom mooy kan ak lan mooy yéeneem ak di ko waar di ko daxwa di ko wax ne ko bul kaale ginnaaw loolu nag lañ ko yóbbu wiir wiir foofu nag mi ngi ci diggante Mayomba ak Kabinda diggante Mayomba ak Kabinda gi nga xam ne mooy booru Angola ak Kilo wiir wiir nag fu raglu la foo xam ne kuñ fa masaa yóbbu saw fit dana dem te it diggante bu gàtt rab ya nekk foofa eh, jëfandikoo la diggante bu gàtt rab ya nga xam ne ñoo fa nekk jëfandikoo la waaye sëriñ moom bañ ko fa yóbboo daa mel ne foofa da ko yokk mbégte ndax moom lañ fa yóbbu woon ak ku ñuy wax Sàmba Lawbe wax nañ ne ba mu fa yeggee daf dane Samba Laobé de ah, fii de xanaa daa mel ne neex naa jaamoo yàlla ngir lan ngir gërëm gu gërëm dogalub yàlla sunu borom subhaanahu wa sëriñ bi lépp lu mën a xew ci ak dundam rek dafay gëm ne lii sunu borom moo ko dogal ba tax na loola daf koy neex moo tax sëriñ Cheikh Sidiya Cheikh Sidiya Baba doon na ko tagg di wax ne eh, laa taxjubul asbaabu anhu xaqiqatan intaaha fi zulumaatiha mantaaha ndax lan yarda ida jarratil umuru musalliman ilman bi anna ilahahu ajraha dafa doon koo xam ne lu yàlla dogal rek daf koy neex daf koy gërëm ngir xam gi mu xam ne ci sunu borom subhanahu wa taala la jóge yarda ida jarratil umuru musalliman ilman bi anna ilahahu ajraha maanaam lu yàlla dogal rek da koy neex ngir xam gu mu xam yàlla ko dogal wiir wiir nag Eh, sëriñ bi yàggu fa wax nañ ne gaal bi nga xam ne sax moo ko doon yóbbu moom sëriñ bi sëriñ bi moo ko njëkk dellusi dellu loolu nag di kiimaan goo xam ne eh, gu fees la di kiimaan goo xam ne kiimaan gu fees la kon ba tey eh, waxtaan wi jeexagul dañoo toll fi ñuy yëkkatee jataay bi di leen jox dig daje ci bind bi nga xam ne moo ci topp ñu fas yéene ànd ak sëriñ bi nag ci nettali yi nga xam ne moo ko doon nettalil boppam xew-xew yi nga xam ne moo doon am ci géej gi ci digganteem ak tubaab yi kon bind bi di ñëwaat allah ci xew-xew